voilà nos chers auditeurs de la radio Mourchid FM Tivaouane 87.6 euh, plaisir la contentement Tu m'as ñëwaat ak y émission à la découverte ci sen émission à la découverte bi nga xamante du ngeen ci wét benn yoon à tout moment rek wala chaque samedi euh, tous les samedis et rien que les samedis à partir de 11h dama ci ñëw ak invité yu nga xamante ni la que ça soit woykat bi la que ça soit artisan bi la wala sax ki nga xamante da fay yëgal ngu ci walum livre la wala dara motax nak tay dama fi dalal nak samay chat sax la len tuddé hein ah, benn benn groupe de rap bu nga xamante ni la dañuy spécial machallah ma dal di len di indi rek fi nga xamante nak moy sen plateau ñu dal di fas ne nag daal di waxtaan ak ñoom waaye bala ma leen di bàyyi ñu daal di présenté wu rek noonu laay def daal di dugg suñu xalif généraux yi ñoom ñëpp di leen nuyu bu baax a baax a baax di leen ziar waaye tamit di nuyu ñi nga xamante ni ñooy suñuy préfet suñu ay maire waaye it hôpitaux yi police ba ci gendarmerie fépp fu nekk rek ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax di leen ziar noonu laay def rek kon di bàyyi nag sans sama invité yi nga xamante ni ñoo ñëw tey ci sama émission ci seen émission préférée di à la découverte ma daal di leen leen di bàyyi rek ñu daal di eh, présenté wu bu ko defee nag ma daal di jox ki nga xamante ni sama micro mooy eh, PM Pro mu daal di présenté wu ainsi de suite su ko defee ñu daal di gën a wéyal li nga xam ne mooy waxtaan bi PM ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar. ñu ngi delloo ziar bu baax di la fay. sinon naka mu baax yaa ngi ci jàmm bu baax. maa ngi ci jàmm bu baax kay. ah alhamdulilah ah. waaw voilà ñu bëggoon rek nga daal di ñuy wax eh, vraiment kan mooy PM Pro le temps ngay jox tamit sa naataango bi nga xamante ni moom nga àndal micro bi. dëgg waaw maa ngi nuyu àdduna di nuyu képp ku may seetaan waaw PM Pro moom mi ngi jugee rek ci Pambay man Pambay laa tudd ma jël euh, commencement bi muy P jeexalu ka ak kii bi sant bi mbay bi muy M ma def ko en anglais muy PM. ma yokk ci pro bi wane dal may pro ci rab bi dëgg la yeah sha allah mu ngi noonu kon nag joxaatal sa natango bi nga xamanteni mom nga eh, nekkal momit mu dal di ñuy jox turam rek dal ñuy wax momit naka la def pour dal di indi momit création xom wala pseudonyme am eh, pseudonyme am ah. tur bi nan la ofa ma ngi tudd ofa bandi mm-hmm. di nuyu sama gaay nag yéen ñëpp maa leen di pege mm-hmm. opa opa bala ngay bala may jox sama micro ñaar ñi nga xamanteni ñoo nekkaat sama côté droite dag ñuy wax rek opa bi fan la jóge ak kan moy réellement opa Opa benn rappeur américain la mm-hmm. sama benn mag ki ma dugal si rap mi tudd Bamba Diop moo ma jox tur bi mm-hmm. band bi nag mooy band rek. Mm. waa na amul problem. dina ñëwaat ak ci opa Bandi ak ci PM Pro legi legi legi. waaye nak eh, bala may gëna sori soriwaat tamit ci waxtaan bi damay bàyyi tamit sama ñaari parti droite yi nga xamanteni ño tok ñoom ñu daldi di présenté wu rek su ko defé ñu daldi di commencer nak li nga xamni moy waxtaan bi eh, ñu ngi lay nuyu bu baax di ziar. ah ñoo ngi lay fay ñoo ngi lay fay bu baax ah, man ma ngi tuddu Elzo prezi di nuyu ci sant sama ñaari waji di nuyu ñëpp ku nekk ci aduna rek Elzo prezi nak mi ngi ci benn rapport bu ñu naan xam sa boss moom laa dégg mu dugal benn classe ni moom mooy boos game bi man ma dugal Elzo Prezy man maay Prezy game Elzo Prezy rek foofu la jógee moom. xale dañoo am seen ay tur yu original nga daal di jox rek kon nit ki nga xamante ni moom it daal di joxe li nga xamante ni mooy turam. Eh, Safi maa ngi leen di nuyu sa caméraman bi ak DG bi maa ngi bëggee sama waa ko ñu waa man moom Wilza King laa tudd Wilza King bi mu jigee ma jël sama tour commencement bi double V bi daa tuddee sama bopp Will Zakin voilà mu ngi noonu xale yi dañoo am seen ay tour original seen ay tour yu spécial moom la ñu indi tey fii daal di koy créer ah, ñu bëggoon rek nag xam PM yow ci yow lay commencé bala may demaat ci ñeneen ñi eh, dama bëggoon rek ngeen wax ma seen turu groupe bi nan la tudd. yeah turu groupe bi mi ngi tudd Gang Talent. Gang Talent la tudd. waaw Gang Talent est-ce que dafa nekk groupe bu nga xamante ne da ngeen koy soog a créer wala yow am personne yow yaa créer Gang Talent. waaw ñun ñoo réunion rek ku nekk di di joxe xalaat mm-hmm. ñi joxe five gang ñi joxe flam gang di saag man ma xalaat gang talent mm-hmm. ma ni parce que buñ defee benn gang ba pare am talent mm-hmm. comme noonu moo tax ma def ko gang talent. xale yi dañoo original de <laughs> <laughs> daal di créer seen benn gang talent noonu daal di toog waaw.

ah ñun de gang bi fi mu jugee mhm. ñun groupe bi biñ koy commencé maag William Zo mi ñoo àndoon moom laa fekk ci place yaayam mu toog mënu ma duñ formé benn groupe man ko PM Pro mi ngi ma doon wax pour ñu former benn groupe nañ dem léegi biñ formé ñu ñett après PM woo xës après teg si opa ñu commencé zéro groupe zéro groupe ba mu dem ba ci biir mais préparé nag mm-hmm. incha allah dinañ concert moom dinañ ko indi kon loolu fi nga xamante ni mooy seen ay mooy seen émission à la découverte ay xale yoo nga xamante ni ni la gëm nañ li ñuy def bëgg nañ lu ñuy def waaye tamit ñaan nañ am ku nga xamante ni wala ñoo xamante ni dinañu pare euh, pour jàppale leen à ce que ñu daal di gën a mën a xuus nag ci li nga xamante ni moom lañ bëgg bu ko defee rek damay daal sama micro ki nga xamante ni ni mooy euh, Will mu daal di moom it ñu daal di waxtaan rek ak moom Will yow nag question bi ma lay posé mooy que ni li nga xamante ni mooy métier rab bi kañ nga toog ba xam ni yow mi kat pare nga wala taxaw nga pour dugg def li nga xamante ni mooy rab. yeah man ay 2016 yooyu noonu maa ngi doon bind ay texte di ko denc mais 2022 laa gën a taxaw si rab bi dem ay studio yooyu noonu toog grand frère yi neen man bëgg naa rab bi quoi kaay daa ma si jàppale ba deux mille vingt trois si laay soog a lancé son ànd ak booy daal si kon bi ngay bi ngay commencé di écrire li nga xamante ni mooy rap yow est-ce que mën nañu xam exactement ñaata at nga amoon. boobu maa amoon ay quatorze ans yooyu noonu. kon yow pare nga pour taxaw pour ñu produire la yow aussi nga daal def li nga xamante ni mooy benn son wala am nga son bu nga xamante ni instant bi ni disponible na. instant yii dóoraguma son nag mais suñ jugee si lii naa door kon daal mu ngi noonu kon mën nañu wax que ni booy yi tamit dañoo pare nee nañu ah dañoo pare surtout le terrain nag pour euh, def li nga xamante ne ni la mooy seen métier rap bu ko defee rek yow tamit ma daal di lay jox euh, sama micro nga daal di may wax yow en tant que euh, nouveau rap ah, yéen a ngi yëngu ci li nga xamante ni mooy nouveauté yi bi ngay dugg ci rab bi est-ce que amul lenn lu nga xamante ni say parent gis nañ ko ci mu naqari leen wala dara vu situation bi nga xamante ne ni la léegi moom la nit yi di dund man bi may dugg ci rap c'est sama ben mag bu tudd bama Diop breng man la mom la daan àndal moom moo ma dugal si mais bima démé ba tag sama parents lañ ma baye pour ma rap Bamba est-ce que def def nekkoon di def rap wala def le pousser def la gëna pousser poussé ce que ngay def li nga xamanteni ni la moy rap bi. Bamba mom breng man la dama pousser pour ma dem ah bal ban année nga commencé dugg ci li nga xamanteni moy rap bi rab maa dugg ci deux 2021 deux commencé dugg ci rab bi. biñ ci dugg est ce que mën nañu xam euh, ban classe nga doon def ñaata at nga amoon. bi may dugg ci rab may def c'est moi mhm. te lii laa amoon ay 13 ans yoy mhm. voilà kon yow paré nga pour paré nga pour bind li nga xamanteni ni le moy ay texte euh, pour euh, di commencé di dugg ci li nga xamanteni moy métier rab bi. bind na ay texte waaw. Mhm du yàgg dara après dinañ ñew légui ci texte yi nga xamanteni ne bind nga ko PM bu fe nga dal di jël yo tamit micro bi dal di may wax rek bi ngay dugg ci li nga xamanteni moy mooy milliard bi est-ce que amul tamit yow aussi sa parent lenn lu nga xamanteni reprocher nañ la ko vu que ni ay xalé ngeen mais da ngeen am jëmu paré taxaw ni da ngeen di def li nga xamante ni métier rab waaw man bamay dogu dugg ci rab sama ben frère demi fa mom dama ñëk dem seen kër gis ko muy muy muy muy rap léegi mu tegal ma ay son yu bari manam kër ga nak ah di ci fo di ci fo di ci fo ben jour ma jek ba si yàgg ma jëm seen kër ma tegal ma ben bit na ma rap ci bit mooy d'accord instrument apna ma rap ci ah bit moy instrument yi ngeen di utiliser comme genre son yooyu waaw waaw yeah léegi mu tegal ma loolu ma dóor ci mhm. léegi ma dóor mu ma yow tom li nice na yow yow mom paré nga mën nga paré pour pour ki mhm. léegi après ci la demee ba kër ga woo sama yaay sama yaay mu xawa bañ mhm. sama papa tam dama dama xawa bañ momit mais bu demee ba ci biir si la ma sama yaay ñaanal bayima sama papa tam xam na ko ñaanal na ma bayima bi lay bay nga dem euh, da nga leena won ke ni pare nga pour jang boole rab bi. waaw nga nango jang wala tamit da nga togon rek euh, bañ ni doto jang sans tant que bàyyiwuñ la nga dem defé ji rab bi. non non bala ñuma gëna bay sax foo ma jàng sama ba mokal ko pare. Mm, am ci sa ay moyen aussi. wa wa voilà mu ngi nonu lolou kon nak yakarna naa ni parents yu bëri ah, dinañ wara mëna pousser seen doom kon à que ñuy jàngaale tamit en même temps parce que bëri na ci parents yu nga xamante ne ni la bëgguñu seen dañuy bañ a jàng euh, di ni dañuy dem consacrer seen temps ci musique mais yéen loolu est-ce que yéen koy boole aussi di jàngaale seen ay di def seen ay cours normalement parce que élèves dañuy daw jàng di def yoo xamante ne ni lay damay musique yi jeeg damay wooye ji yéen est-ce que bokkoo leen ci xale yooyu <laughs> ah kon baax na te yow tamit bu ko defee nga daal di jël sama micro rek ma daal di lay euh, laaj tuuti question muy que ni est ce que woyn pare waa Hann Talent am ngeen kenn ku nga xamante ni la pare na pour defal leen ay production pour que ngeen génne lu ci mel ni benn single. waaw ñun am nañ ñu pare pour defal ñu ay kii nii pour jàppale ñu x pare na pour jàppale ñu même ah, xasaar X-Men moom moo ñu enregistré sunu son bii nii moo nekk challenge music Daaru Salaam waaw léegi tamit pare na pour defal ñu a moom day tëgg ay bit day tourner clip mais moom pare woon na sax pour ñun ñu ànd ak moom Ibi studio bañ bañ pare woon sax ni dañuy dem ci gars yi pour ñu jàppale ñu maire yeeg yooy lan ñu defal leen en tant que ay ñun dañoo bëgg a xaar booy mataale ñu ànd sax xësa mën a demaale waxaale gars yi pour ñu mën a am sunu maison de production. booy ñii dañuy jàngi tëjoo waaw ko ñu ak ñii ñii feebar fii nii ñu xaar ñu wéraale ñu doon benn rek ñun ñëpp ñu àndandoo bëgg ñu koo def ñaari yoon légui yeen joxal ma joxal ma wil sama micro mo wax ma rek mom ba xam ma wil lan ngeen di sentu yeen ya ci sen gang tana bi parce que bëri na ay groupe de gis nañ ko fi ño xamanteni buñu andé tay il suffit juste que ñu commencer ñu commencer am buzz problème yi commencer tambali te yeen ay xalé ngeen euh boy wax wala ngay ñaax lan ngay sentu ci li nga xamanteni moy sen gang bi. non ñun mom loolu du ben problème ñi ngi sentu ay projet yoy non yépp avancé di liggéey dem suñu kanam mom amuñ ben problème yoy non di groupe di and ba ci yag di tass ak yoy di xolo xex amuñ ben problème yoy non mais du am tamit yenn détails yo nga xamanteni ni parfois dina ñew di am ci seen digënté aussi. détails yooyu mën ta ñaax parce que fepp fo gis gaay and ay seenaane dug seen biir mais lool après dañ ci waxtana rek. Hmm. waaw mais paré ngeen aussi pour am lima wax ni am ngeen ku nga xamanteni ni la dina paré pour défaral leen ben single de groupe bu nga xamanteni ni la di ngeen ko di ngeen ko di ngeen ko mëna a fi fii ak fan yu neew waaw waaw ñoo am nañ ay signal yu bari yoo xam ne boo boo taxawee ne nee nañ bind test rek dañuy bind test fët fët ñu dem jokk ngeen ci am kenn kuy bind wala yéen ñëpp ku ci nekk rek da ngay da ngeen di dajale xalaat wala ku ci nekk da ngay bind texte indi ko pour ngeen teg ko bu ngeen paree ku ci nekk daal di tànn texte bi nga xamante ni moo gën a adéquat ak société bi àndal non kii ku nekk da ngay bind texte ku nekk da ngay jël couplet ku nekk sa texte si couplet boobu nga koy dugal si son bi ku nekk da nga si am part te ku nekk dañ ci ciy am benn part nga xamante ni bii mooy comme genre li ngeen doon def sànq ñu ngi tudd freestyle. waaw waaw ku nekk da ngay am part boo xam ne fa ngay dugal sa couple hmm. waaw. d'accord mu ngi noonu kon nag yow euh, jëlal sama micro su ko defee rek nga daal may benn freestyle noonu lañ koy waxee ah xale yi dañoo engagé fi mu toll yi dañoo pare te dañoo engagé man naa nekkate damaa yaakaaroon ni man rek. maa mën a ndekete dama fee gis ñu ma dàqa woy foofu daal di cay topp bu ko defee rek léegi da daal di may nag benn freestyle boo booy may sax laay wax après auditeur ak internet yi nga ni ñu di seetaan. yeah oh, tëbal tëb may tëb ma too band bay këj tegul son bi def vëp pour la ma dëgër këj xajuma sa kaw dama diis gan marafok yaa say diis gan dugg sa fii ngay siiñ fan maacati leer ngay toog ban su la booy ful kan léegi yow loolu dafa nekk lu nga xamante ne yow mii yaa ko bind. waaw yéen a may laaj yéen ñi ngeen xamante ni yéen yéen bind freestyle bi bàyyi na ni parcourir noonu seen leçon. a ah di waaw baax na école de bu tëjee fi mu toll nii yéen ñëpp laay wër seen kër ku ci nekk dinaa xool sa bulletin su ko defee nga daal di jox nag ki nga xamante ni mooy PM PM moom dafa dafa xat koor loolu la dafa lay bàyyi nga daal di def si bu saf sap yow tamit le temps may xool wil ak ki nga xamante ni moo nekk sama wet moom tamit. yaa PM Pro. e e man maa ñëwaat ci game bi tegaat am fit flow bu sadik demal nga toogi yëngal fépp de vëb soo ko toogi foog la foog seen xalaat taca laamin xam nga ne pm rab rek laamin ñuy teg rab ngay teg gën cee gën foog sa MC takal la bin bin natal leen mesure ñëw seen gaat ñëpp xam na ni fit doo bandi I never give up ñu ngi ci booy man maay rab ba sa booy e maay teg bi gaa day flow bu siw ni maire bin tafay ñu la gën a jegee ñoom ñaana de santange rab dama jegee foog sama ennemi doog ci defet dama gën a bàyyi rab amul picc bravo lii de wala yàlla Saliou mënu ko lii moom Saliou mënu ko moom Saliou ak Zé xaw ma foo leen mënti nekk ci mim réew PM yow teyel ma pare teyel ma pare question bi ma posé kii nii moom laa lay posé nan nga mën a boolee yow mii rab ak li nga xamante ni mooy leçon yi yow est-ce que bokkoo ci élèves yi nga xam dañuy war a rëse leçon bi par <laughs> non non non ma xasee ba ubbi sama kii leçon rek fàtte naa rab bi kon yow yaa ngi ci sa en dehors de rab bi yaa ngi séntu ci sa éducation leneen lu nga xamante ni dafa ute ak li ngay def nii. yeah d'accord ah xale yi dañoo engagé de man de ñëpp engagé nañu ba mu des man. waaw ah. <laughs> doxal ma kii nii. ba pare balaa maa joxe sant tam sunu sunu kii bi ki ñuy ki ñuy ki ñuy dóorool son X-Men. d'accord parce que dañuy ci côté bu ne. mooy ki Salaam. Darou Salaam que son dix mille la mais ñun cinq mille la ñuy ko moo tax dañoo jàppale bu baax ah, macha allah <laughs> waaw dinañ dem seeti ji ci bu ko defee tamit ñu xool euh, maa ngi biir Malcom génn ji xel kom maay ngi sama télécom ba mu bëggee jot dafa elzo point com yee ñun la boy mo télé rab dewe ñoo ko dekk récolté ñu pi universal imposé diril gaal seen joxlu flow yu wéré di indaale la gang fooyi waxal ma samay cris ama temps du caga laalof tëju atum lëmb di leen ngandi ngan di album <laughs> wóor na yàlla duudu mënoo lii dina wóor de mën na xama woon ni ci am na fi ay booy yu raagee yu yu yu yu mën a rabee nii macha allah yéen da ngeen a meilleur de ndekete macha allah da ngeen a meilleur mais est ce que am ngeen tam pare ngeen wala gis ngeen ku nga xamante ni la pare na euh, pour produire waa Gang pour mu créer sax même bu dee benn clip boo a booster pour que nit ñi a xam. waaw ñun de gis nañ ñu pare na pour pour ñu pare pour defal ñu kilip ak ñu pare pour defal ñu pare na pour defal ñu clip ak bit yëpp. même MHD tamit pare na pour defaral ñu clip. pare ngeen pare nañu waaw ñoom ñoo pare yéen da ngeen xaar wala. ñun ñun dañuy bi génn fee studio. waaw da ngeen di studio. waaw bu defee daal. fi kaa bi fi kaa bi neex joxal ma wil bu ko defee moom tamit mu daal di ñuy bàyyi benn freestyle du ko mën ak DG. yeah fils waxal sa gaay maa ngi may toog balaa ma leen di may toog di jom ñuy wër di xew e eh, mënu ñoo rab leen day tal may tegu ci temps ñi tegu ci banque eh, sa ñu ci ma rom ko dem leen toog du ma seen combat ngay wër maa yor may teg waa ma may daan ma yëg ci kaw seen di leen daane seen MC mënuñ tata ñëw fenn ma romb sa rabandi daagun jeg ay dugg ci gém rek dem parce que eh, yàlla ma tal ko mënoo ma fekkoon dem leen ay doole ma fakk seen lawelu jëwuñ yalna naa wàcc karo yi merci beaucoup Will yaa wóor est-ce que mën nga ñu rek euh, wax euh, tamit yow aussi sa jang parce que sa yaay mo man ngi moom nañ sa yaay moom sama yaay yi ma maa yow ñoo bokk yaay est-ce que amul lenn lu nga benn problème bu nga xamante ni la créer na lo ko ci euh pour que nga bayyi rab bi consacré sa temps ci jang mi moom dama arrêté njàng isaan ni mais mère bi ama ma dugg ci rab bi doon na kaas yooyu noonu xam nga dañoo xam won mère yi moom dañuy jamm ne rab bi tux naan yooyu noonu la mais moom dem ba comprendre ba nañ ñu dem bi ngay ci rab bi bi ngay génn ci jàng bi rab bi moo taxoon wala da nga toog nii rek ba xalaat ni yow nii euh, da nga bëgg a arrêté cours génn si njàng bi rab bi taxul woon de. inspiration bi daal laa dab. waaw. d'accord euh, voilà mu ngi noonu loolu nag mooy li nga xamante ni la sama gars yi indiloon nañ leen ko ñoom waa euh, talent. mu nekk nag benn groupe boo xamante ne ni la danoo doy waar est-ce que amul tamit dafa am leneen nga xamante ne da ngeen ñu ko préparé indi ñu ko nekk benn surprise wala nu mu fa demee noonu parce que yow PM yow moom dafa mel ni da engagé yow. waaw groupe bu ñu dóoroon. Mhm. yéen yéen yéen ko dóor fii nii avant ngeen a. waaw suñu benn son groupe la waaw. d'accord euh, léegi bu ko defee kon son bi mun ngeen ko da ngeen koy teg wala dafay nekk lu nga xamante ne ni ku ci nekk day. non sama baay ci téléphone dana koy teg moom ci téléphone ma koy tegal. waaw waaw d' accord ba tey mën naa nekk léegi kon bu ko defee rek nga daal di ñuy euh, play play ñu defal ñu ko play back ah nee nañ ngeen defal ñu ko play boo woyee kii woy man rappeur yéen yéen a xam seen ay play back ah si possible mën naa nekk ah. waaw ngeen defal ñu ko play back voilà moo ngi noonu kan mooy njëkk a commencé ci yéen ñu daal di koy jox micro bi mu daal di ñu dóoral nag. Oh, d' accord. waaw. इधर रखना है रख तक JDM From thief Travel what we get. But y'all ain't getting no ass on them. Tell you that I do to get. What was the rap when you're gonna cut boy thing again. Let you put out the bomb again. I'm gonna like Fuck you, but they was a are boy. I'm yàgg daa ko ay wóor obsession ne la mën a branché almal dawlu ma ñëw ndey diwi maa man far Hey, ak ñoom jiwi nga koy daf ñu xam may rakkat dañ koy defaat rakkat farfat dafa li ngay def si farfat kon la kenn moom a dinde kon la kasa kapten si baalu kasa soo la ma tuuti maray lay tukki def na ni julli then I'm touching the telo si boy. I'm off in jarin the telo si boy. Wherever I go, do my thing. Do my man, that I'm gonna cante. Si se buka te ni kum cante. I go for that boy, gig cante. Conteste, for sate. Malaboy, papa, and go do my best. Eh. The blue sahel, little in prison, prank. Marafa, go to the go si tel. Ah, the kid, he was saying, game eh. eh. it. Brother, sahala, my semen. Granta, how good, jagged. Brother, grab the jagged.

farfat defal li ngay def si kenn moomu tinte gol la katsa capitaine si baa bi katsa benn mbir bàlle lañ bëggoon a facturiser ay booy ndaw nekk si game di briser ku yàpp ñu def lu ñu sa bopp naan yaa fi ne boo yëgee si ñun di nga gaare ñu ngi soog a doon ngay jël daare e man maa ñëwaat ci game am fit flow bu sandi demal toogi a toogi la toog seen xalaat desala mi xam ngeen pm loolu la mi ñuy teg ram ngay teggin ci foog seen mc tegal la bir bi natal leen ma leen ñëw seen gàtt yi ñëpp xam na ni Jika yute fokus uni mer pinta fight Nyama kena jege nyama deh. Santang Santange rap tama jege Fox sama enemy babi tefer Lema kena barap amus piche Suruh karantia nyuta ay peta Mga karantia fali babi peta Para mutu fok ibu separu taksi kembi nyokota Tangarap kori nyi furi furi kuku tangga tangga nyuri Zane mar maro ne mar Lema rap amfu damar dutar Serabu se embe sumar nany far Rombu meni no lo moro rap Ide tangga tangga nabe sarat ah. Kupa jen tagi dengan manis Magawa

téye ngeen bës bi de bàyyi ngeen loolu macha allah yàlla na seen jàmm yàgg vraiment li nag nekk na lu nga xamante ne ni la ñu bëri parce que ñu doom tamit ñuy dugg des fois ci yenn ci li nga xamante ne ni la ñoom moom la ñu am envie def ko euh, terewuñ leen ko benn yoon te loolu dafa nekk lu nga xamante ni c'est rare de nos jours parce que da ne nit bu sa doom bëggee dara rek boo ko ca dimbaliwul fekk ci ko sax yaakaar naa ne boo ko ko teree lor nga ko te yéen tamit seen parents yi nañ leen vraiment pour que ngeen dugg nag ci li nga xamante xamante ni yéen a ngi ko bëgg mais nag kii jiital na métier am kii jiital na tamit kuuram euh, euh, vraiment loolu dafa nekk lu nga xamante ni la c'est très très très important et intéressant aussi yàlla seen jàmm yàgg yéen ñëpp euh, bu ko defee rek nag yow wil ci yow laay commencé bala may jeexali jee ci PM mi tey moom laay jeexale dama lay bàyyi rek nga daal di wax nag sa dernier moom ak lan ngay benn remerciement moom ngay remercier say parent ñoom ñi nga xamante ne ni la euh, dañ la bàyyi nga daal di dugg ci li nga xamante ni mooy métier bi te nag nu yóbbu bul fàtte ki na dumb yaa sama xarit bi de fàttewaat yeah maa ngi remercier parents ak mère di remercier Fatou Kiné Doumbou yaa sama mag di remercier sama boy koñ waa Alea 11B man nag rab bi parents ak mère bi dañ ma see bàyyi noonu mais teewul ba léegi dañuy job joob heure job jotee dañuy dem job suñu wàccee nag toog daal di inspiré xool nañu war a dugal si rab bi loolu kese moo ñu fi baax maa ngi nuyu ñëpp nag ñi ñuy seetaan émission bi yëpp naa merci maa ngi leen di remercier yéen yéen ñi ma invité merci beaucoup Will ñu ngi lay remercier bu baax a baax a baax waaye man tamit rek may profiter di nuyu sa yaay Tafane Matama ma naa la mooy sama yaay bopp ah parce que moom it euh, vraiment baax na yaru na yéen ñu ci des dinaa wër seen yaay tamit kenn par kenn takk leen a yaay bu ko defee comme yéenee samay caat ñoom ñu nekk samay yaay rek moo ngi noonu euh, ma daal di lay bàyyi rek euh, yow tamit yow sa tur sax nga ne nan la Zo Prési ma daal di koy bàyyi moom it nga daal di jaar fi nga xamante ni foofu la Will jaar waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu sama papa sama yaay sama papa mi ngi tudd Balla Sock sama yaay mi ngi tudd Mami Kane ñoom ñaar ñëpp maa ngi leen nuyu di leen fay di nuyu sama waa koñ waa FC Essor ñoom ma dee rab ba léegi ñoom dañ may woo ñëw sax di ruube seen grand yi MSD ak paparazzi pour ma ruube leen ñëw naan leen kaa leen kalaasante foofu la ñuy togg rab ba heure añ ñu jóg dem ngoon gi ñëwaat maa leen remercier baax ñoom ñëpp Euh, merci beaucoup fii euh, ma jëlal micro bi nga joxal mako ko ki nga xamanteni moy nan o opa opa bandi opa lan ngay wax yow tamit ban remerciement moom ngay jox sa ay parents ak lan ngay wax tamit sa benen morom yi nga xamanteni ni le euh, bëgg nga ñoom ñu dugg ci ci ci ci milieu rap ay bëgg sama papa ak sama yaay mhm. ak sama gaay ñoom big moomu ñoom bamba sama frère ma duggal ci rap ma ngi bëgg ñoom ñep ak sama yaay woy ba may dugg si rab damaa waxoon ni bu si dugg léegi sama mag bi ñëw wax moom si la ma bàyyee ma dugg si rab. moo tax na kon nga war cee góorgóorlu bu baax a baax a baax te xam ne grace à ton grand frère boobu noonu yaa ngi nekk ci milieu bi yaa ngi rab mais aussi sa yaay tamit mi ngi la ciy bañal nga am ci problème wala dara euh, loolu tamit ban jàngat moom nga ci am ak lan ngay wax tamit sa yeneen moroomu jeunes yi nga xamante ne bi dañuy bëgg a dugg ci rab mais duñu aw ci yoon bu njub bi. non sama boy bëgg dugg ci rap te seen papa ak seen yaay bàyyiwu leen dama leen wax lee seen papa wax rek ñu nekk si waaw voilà mu ngi noonu merci beaucoup maa ngi lay remercier bu baax a baax a baax PM nag yow tamit fii nga xamante ni fala la jaar yow tamit dama lay daal di rek dékkal micro bi nga daal di jaar foofu waaw maa ngi nuyu sama yaay bu baax ak sama papa mhm. waaw di nuyu itam sama frère yi ma ñi xamante ni ñoom ñoo ma ñoom ñoo ma gën a tax ma rab comme ku ci mën ni demi fa maa ngi leen nuyu baax Moïse ak Louva ñun ñëpp leen di nuyu di leen sant bu baax waaw. merci beaucoup ñu ngi leen di remercier bu baax yeen wa Gang Talent hein. euh, vraiment. Eh, sen prestation bi ngeen fi def nii gisuma lenn lu nga xamante ni ni la nat nit war na ko cee wax wala mu am ci benn benn benn benn côté négatif boo xamante ne war na ko cee xool parce que ay xale nekk ay ndaw ah di di jàng di liggéey en même temps ñu koy boole aussi ak li nga xamante ne mooy seen métier rap eh, vraiment c'est c'est vraiment un acte à saluer c'est vraiment une chose bu nga xamante ne ni la nag eh, autorité yi ak képp ku nga xamante ni kilifa nga rek war nañ leen a jàppale parce que lii dafa nekk lu nga xamante ne ni la dina buux nit yu bëri bi pour que ñu jël yoon bu jub bi bu leen neexoon mun nañu jël yoonu délinquance bu yoon bu nga xamante ni ni la du yemoo ak lii ñuy def ni mais ñu ngi boole seen étude boole liggéey euh, tamit di ci woyaale di ci def tamit li nga xamante ni moom leen leen seen ay parents digal euh, te loolu dafa nekk lu nga xamante ni dafa jafe ci mim réew euh, ce fut un plaisir nag ma amoon leen fi nga xamante ni mooy émission bu nga xamante ni mooy à bu ko defee rek kon damay daal di jox gars yi dig daje ba prochain